sëriñ Habibou Mbacke sëriñ Habibou Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1907 ci dëkk bi nag di Mbacke Kajoor di doomu maam soxna Faal Sëy ak sëriñ Ibrahima Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Mbacke Kajoor moom sëriñ Habibou Mbacke nag am na ñu bokkal kii di maam soxna Faal Sëy ak kii di sëriñ Ibrahima Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Mbacke Kajoor ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Abdul Mujib Mbacke ibnu maam soxna Faal Sëy ibnu sëriñ Mbacke Kajoor ak ku ñuy wax sëriñ Babacar Mbacke ibnu maam soxna Faal Sëy ibnu sëriñ Mbacke Kajoor ak ku ñuy wax sëriñ Abdou Wahab Mbacke ibnu ibnu maam soxna faal sëy ibnu sëriñ mbàkke kajoor ak ku ñuy wax sëriñ mohammed mbàkke ibnu maam soxna faal sëy ibnu sëriñ mbàkke kajoor ak ku ñuy wax sëriñ maxtaar mbakke mbàkke nu maam soxna faal sëy ibnu sëriñ kajoor ak moom sëriñ habibu mbàkke ibnu maam soxna faal sëy ibnu sëriñ mbàkke kajoor sëriñ habibu mbàkke juróom nag la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor ak moom muy juróom benn seex musaa ka bi muy way nag kii di sëriñ mbàkke kajoor mag ñuy wax ne nag soxna soo soosu mu dëkkoo woon di soxna maam soxna faal sëy ginnaaw bu ko sëriñ mbàkke kajoor meññil ko njabootam gii mu ko meññil muy li ko dale nag ci sëriñ abdul mujjib ba ca maam soxna faal sëy ay boroomi barke dong nag la meññi ñu teewlu nag way ci cheikh moussa ka ngir di ñu wax nag njabootuk soxna maam faal sëy mii min baadiha nakaxa soxna faal sëy wala alayhi xaajun wala shay walada minha awalan abdul najid maa abi bakrin fa faaraqa atid baadahuma naalat xabib allahi huwa aalimun azimul jaahid bi mu matee dal alxuraanul karim magam ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul moo ko dalal alxuraanul karim ci njaareem boole kook doomu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke bii ñuy wax Sëriñ Cheikh Faati Faal ñoom ñaar la dalalandoo alxuraanul karim ci dëkk boobu nag di njaareem ginnaaw bi nag la leen nag ñoom ñaar yëbbal leen nag rakkam ja maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag moo jël nag jëmm yooyu yóbbu leen nag ci daaray alxuraan nag jim taxawaloon booba nag ku ñuy wax sëriñ Moor Dem ma nga fa woon di jàngale ak ku ñuy wax sëriñ Soose Njaay ñaar ñii nag ñoo jàngal nag sëriñ Habibu Mbàkke nag alxuraanul karim amal daaru ci ndigalul nag ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ginnaaw bu mu jógee nag ci ñaari jëmm yooyu dem na nag ci dëkk bu ñuy wax jekk pénc ci ku ñuy wax sëriñ moodu faati aale gay wéyal fa nag am njàngam ginnaaw dëkk boobu ñuy wax jekk pénc dem na itam nag ci dëkk bii nag di ngaabu wéyal fa nag am njàngam ci ku ñuy wax sëriñ mouhamadou lamin jaxeer nag la doon jàngee magam ma nga fa woon ju ñuy wax sëriñ babacar mbàkke sëriñ babacar mbàkke moom itam nag jàngal na ko nag lii di xam-xam ginnaaw bu mu tàmbalee jàng xam-xam nag ci loxoy magam sëriñ dëkk bu sell bii nag di Touba ci jàmbaari ku baax ki sëriñ Touba xaadim rasool bi fi newoon di sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Jamooñ ginnaaw Touba ci loxoy sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Jamooñ dem na itim nag ci ku ñuy wax sëriñ Cheikh Ka ngir wéel nag am njàngam nag ci wàllu xam-xam dem na itim nag ci sëriñ Moulay Bousso di doomu sëriñ Mbàkke Bousso a wéel nag am xam-xam ginnaaw sëriñ Moulay Bousso di doomu sëriñ Mbàkke Bousso ci Gédé dem na itim nag njaaréem ci loxoy sëriñ Mouhamadou dem nag bu njaaréem fa la nekk nag ci atum 1930 ba atum ngir nag ñoom nag ngir fas yéenee géeju nag ci wàllu xam-xam moom doomu sëriñ Mbàkke Kajoor bi bi mu nekkee nag ci loxoy sëriñ Mouhamadou Dem nag ci njaareem ci atum 1930 jàpp 1931 Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke nag booba nag mi ngi toog xalifa sëriñ Touba Xaadim Rasuul waaye booba itam nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ci rakkab yi nga xam ni kan ñoom la fi Seexul Xaadim bàyyi dañ nekk nag ay tuur tànk te toll itam nag ci njàngum xam-xam Cheikh Mamadou Moustapha itam amoon nay jafe-jafe ngir na xool na ku leen mën a jàngal xam-xam ginnaaw nag bu mu ci waxtaanee nag ñenn nag ci xamal ne doomu sëriñ Mbàkke Kajoor bi ñuy wax sëriñ Habibu Mbàkke tam nekk daal jamono ji ci loxoy sëriñ Mouhamadou dem bu njaareem kooku daal xam-xam moom macha allah am na ko tey itam nag ndaw la xam naa daal soo ko jëlee ngir indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba li nga soxla nag ci sa rakki bopp yi ak sa njabootuk bopp gi daa ko am nag ci jëmm jooju ndax xam-xam moom am na ko kaddu yooyu itam nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke itam nag jëfee na ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke la yónni jox ko lettre nag ci sëriñ Habibu Mbàkke imam di ko xamal ne nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke nag nee na da koo soxla nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ginnaaw bu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke wéelee ndigalul magam sëriñ Touba Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ñëw itam njaareem fab lettre boobu nag jébbal ko nag sëriñ Habibu Mbàkke imam sëriñ Habibu Mbàkke imam itam na ci dëkk bu sell bii nag di Touba ginnaaw bu Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke waxtaaneeg sëriñ Habibu Mbàkke imam di ko xamal ne sama rakki bopp yi nga xam ne nii sama waajur wa xaadim rasool moo ma leen bàyyeel teñ nekk itam nag ay tuut tànk toll itam nag ci njàngum xam-xam ak lenn nag ci doomi mag ñii nga xam ne nii itam nag dañoo toll itam nag ci njàngum xam-xam ñoom nag laa bëgg nag bu ëllëgee àdduna nag bañ leen a jam ci wàllu xam-xam moo tax itam nag ma bëggoon laa dénk ngir nga jàngal leen nag wàllu xam-xam kàddu yooyu nag seex Cheikh Modou Moustapha Mbacke ginnaaw bu mu ko waxee Serigne Habibou Mbacke imaam Serigne Habibou Mbacke imaam itam nag nanguloon na ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag ci biir bayte nag la ko dëkkaloon defoon fa itam nag ñaari néegi ñax benn bi nag mu joxoon ko sëriñ Habibu Mbàkke imam ngir mu dëkk fa ba ci des itim mu joxoon ko sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ak sëriñ Mbàkke Madina ñoom itim nag ñu nekk fa ñoom sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ñoom nag ñu nekk nag seen kër nijaay sëriñ Hamsatu Jaxate yeneen doomu mag ñi nga xam ne nii nag ña si seen kër waajur ñoom itim nag ñuy fekk si nag sëriñ Habibu Mbàkke nag ci bayti ngir nag di jàng nag lii nag di xam-xam ci loxoy Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag la sëriñ Habibu Mbàkke imam biir bayti mu nekk fa nag di jàngal nag rakki cheikh mamadul moustapha mbàkke yi di jàngal ñoom sëriñ touba cheikh abdou lahad mbàkke sëriñ touba cheikh saalihu mbàkke sëriñ abdou samad mbàkke ibnu xaadim rasul sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ibnu cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ mbàkke madina ibnu cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi ibnu xaadim rasul ak sëriñ abdoulatif mbàkke moom maam mor jaara mbàkke sëriñ moodu busa jëng ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne nii nag ci jamono jooju nag sëriñ habibu mbàkke imaam nag mi ngi leen di jàngal ci dëkk nag di Touba boobu sax la ko cheikh Mamadul Moustapha Mbacke jébbal ku ñuy wax sëriñ Daam Jóob di xamal nag sëriñ Habibu Mbacke imam di ko wax ne nag saa boo nekkee xam-xam mi fobal Daam Jóob mii mu féetale nag ci njàngaleem alxuraanul karim mi sëriñ Daam Jóob moom nag moo jur sëriñ Hamdi di jàngalekatu moom itam nag bari na nag lu mu yor nag ci ndonal sëriñ Habibu Mbacke imam ndax waajuram di sëriñ Daam Jóob la cheikh Mamadul Moustapha Mbacke boole woon nag sëriñ Habibu Mbacke imam ngir di ko wax ne nekkee ci xam-xam bi daam jóob nag na nekk nag ci alxuraan ji mu wéy nag ci loxoy ba ci atum 1938 ci atum nag la njaboot gii nga xam ne nii cheikh mamadul moustapha mbàkke nag bëggoon na nag ñu am xam-xam ñoom ñëpp itam nag maasi nañ am xam-xam ci li ko dalee nag ci atum 1931 mu nekkee nag ci loxoy cheikh sëriñ habibu mbàkke imaam defaloon na cheikh mamadul moustapha mbàkke ay way sëriñ habibu mbàkke nag mag ñuy wax nag jikkoy cheikh mamadul moustapha mbàkke mi nag nekkee nag ci lu baax ak nag ni mu bëggee nag lu baax ak nag ni mu fonke nag ndonal waajuram woowu nag di xaadim rasuul jikko ju yaatoo yaatu daal la ñu sëriñ Habibu Mbàkke daal di nettali ci melokaanu cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ñu teewlu ko wali asiri zunubihi wal awzaa xabibillahi dayfani alxadimi bi sirri alabrar hadihi alqasidatu allati min shaqati almihdar fi madxi sayidihi qudwati alaxyar muhammadin almustafa alqaafi sunnat almuxtar sala allahu alayhi wa sallam fi maal aljuhali walaxbaar hal laa tuzilu algarba bacda rawaxilin fiha sucaadu musiqatan linnaamili wa hiya allati tugrika in xayaltaha lisuluki awcaarin kaxarati raajili aw linnaxiibi wa lilcawili wa zafratin tardiiduha في حلق طعن مقاتلي قامت تصدى صرم وصل غدوة ورمت بوبل في فؤادك واغلي ترنو إذا التفتت بمقلة مطفل أنست لها فز بسهم نابل وتريك فرعا فاحما متراسلا إن أسقطت حرف النصيف الزائل ومقبلا إن زقتها بعد الكرى خلت المدامة أنبعت من داخلي وترائبا تزري الزوابل بهجة زينت لها سلك بدر كامل هل تبلغ annaka qawmaha mahriyatun xarfun ariqul asli xayru muwakkili zayaafatun bacda alkalaali ka xaadibin yanmu afaaxisa cibsihi bi asaa'ili cablul yadayni qad ufcimat awsaaluha tatisul akaama bi kulli xuffin daabili jildiyatun wajnaau qad ajnaa laha sacdaanu tuudiha xaaliyan can naazili tahwa hawiya riihi xataa niltamin rasfatan wa nazratan min faadili samxin baliigin maajilin mutafadilin nadbin sabuuxin baariin mutashaahidi sanadin mujiirin munqidin mutashammirin li muazzamin yusjil anaama muzaawili xusumin azuufin xaasimin mutamahidin siddiqi aqwaadin karimi samaa'idi fatinin zakiyin wajhuhu mutalaliun kalbadri laylata yad bi gayri hawaa'idi ginnaaw bu cheikh mamadul moustapha mbàkke nag sancee dëkk boobu nag di taayifa kii di sëriñ mbàkke buso cheikh mamadul faadal mbàkke ak sëriñ habibu mbàkke imaam kenn ku ne nag defoon nga ñaari way nag ci dëkk bu sell boobu nag di Taïfa ngir nag di mu ndokkale Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag ci dëkk boobu nga xam ne nii nag sanc na ko ñu teelu nag ñaari way yi ci sëriñ Mbacke bu sa defoon ya rabbi kulli unaasin layyin taa'ifin al-aakifin jami'ihim fi at-taa'ifi barik lahum fi zar'ihim wa miyaahihim waj'alhu manazil jawa wal ma cheikh mamadul faadal mbàkke moom itam nag daat cay teg ñaari way ñu teelu nag ñaari way yi ci cheikh mamadul faadal mbàkke nag defoon yaa taifan yaxsha nawaiba dahrihi luzbil xalifati mustafa fi taifi mawal aramili wal ufaati jamiihim ma bayna raajin minhumu aw xaifi sëriñ abibu mbàkke itam daal di bind ñaari way di wax nag ca biir waya na yow cheikh mamadou moustapha mbàkke nag ñu ngi lay ziyaare ci jagleel nag gu la suñu borom jagleel nag ci dëkk bii nag di taayifa yàlla nag boo dañ nag di yeesal nag diine ji di Taïf ñu teelu nag ñaari way nag yi ci sëriñ Habibu Mbàkke nag defoon ginnaaw bu ñu sancee Taïf ci atum 1939 zurnaaka nabawi fi quturati bahri qususika almutalatifi la zilta fi diini lilahi mujaddidan kulla almaali daiman fi taif ginnaaw bu ko cheikh mamadul moustapha mbàkke gërëmee nag la dem nag ci dëkk bii nag di misra di misra ak maam balla nekk itam nag ci wetu Touba fekki fa nag doomu ndaya

def mu ci atum 1938 ba ci atum maam Balla Mbàkke moom sax ay wólëre lañu woon ba tax na itam nag jàngandoo nañ alxuraanul karim nag ci jenn daara nekkoon nañu itam nag ay royukaay nag ci yoonu murit royukaay googu nag ñu nekkoon nag ci yoonu murit ak yéeme googu nag ñu yéeme woon ñoom ñaar ci seen tuut tànk ak ñoom ñaar ak seen melokaan nag ni mu woon ko ko am ci bi ñuy gone ba niñ nekkee mag loolu itam nag taxoon na naar bu ñuy wax ibnu mu allah nag ci yoonu murit taxoon na itam nag mu def ci ñoom ñaar ay way ngir nag di xamal nit ñi ne ñaari jëmm yi nag ñuñ mataroy la ñu teewlu way yi ci ibnu muhalla defoon ci ñaari abibu yi muy sëriñ habibu mbàkke moom sëriñ mbàkke kajoor ak sëriñ habibu mbàkke moom maam moor jaara ci yéeme gu ñu yéeme lana min fatawil xafril xadasaani xabibaani mbakkiyaani muqtarimaani huma annayaa min kulli ilmin wa xikmatin bima lam yakun yaani bihi fatayaani huma fi sanaa alhamdi walmajdi fawqa daadiyain ala alxulyaa الأشياء مختلفان وتفاخان وجريا لغاية إليهما طوال الدهر يتبعان قد انقطع الأقران عن منهجيهما فما لفتى بالفقدين يدان ولعا أن لا يدرك صحو من ونا فلم يستطع صحوهما الملوان تبا وقع بالحاص فيما حداهما ولا باحا للخير يفترقان ci 1938 nag la nekk nag ci loxoy xaritam boobu ci dëkk boobu nag di Misra di Misra ak Maam Balla ba ci atum sëriñ Habibu Mbàkke nag jóge foofu nag ci Misra dem nag ci Daaru Raxmaan di Daaru Raxmaanuk sëriñ Madiba Silla nekk fa ci li ko dale nag ci nag ba ci atum 1947 ginnaaw bu mu nekkee Daaru Raxmaan googu itam nag taxawal fa nag daaray alxuraan dëkk boobu nag di Daaru Raxmaan nag ña fa jàngee ñu mën cee ràññee sëriñ Moustapha Mbacke sëriñ Basiiru Mbacke xujja jëng moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke sëriñ Moodu Roqaya moom Daaru Salaam sëriñ Ibrahima Mbacke moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Alioune Mbacke moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Xaadim Mbacke moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Saalihu Mbacke moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Fallu Mbacke moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Mbacke soxna loo moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Sidi Ndiaye sëriñ Moor Diop sëriñ Bàcci Diop sëriñ Daam Mbacke Mbampana ak sëriñ Moustapha Mbàkke ci doomu mag ñi itam ñoo xam ne nii nag jamono jooju itam nag ñoo bokk génération jaar nañ ci dëkk boobu nag di Daaru Rahman ci loxoy Sëriñ Habibu Mbàkke imaam Daaru Rahman googu nag la nekk nag ci atu ba ci atu 1947 nag la ko Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke jëlee nag ci dëkk boobu nag di Daaru Rahman indi nag ci dëkk boppam nag bi ñuy wax mbul mbul nag Cheikh Mamadul Bachir nag moo ko sañtoon ci ndigalul ku baax ki Sëriñ Tuubaa sax ginnaaw bu mu fa ñëwee Cheikh Mamadou Bachir nag def na itam nag lu yéeme ci jëmm ji nag di sëriñ Habibu Mbàkke ndax xam na ne sëriñ Habibu Mbàkke imaam nag waajuróomam la ndax rakku xaadim rasuul la moo tax sëriñ Basiiru Mbàkke fop kër gi nga xam ne nii ginnaaw bu ko sëriñ Tuubaa xaadim rasuul sanc loo dëkk boobu nag dimbul kër gam fa sancoon nag te nekk fa kër googu nag la génn jébbal ko sëriñ Habibu Mbàkke bi muy jébbal kër gi nag sëriñ Habibu Mbàkke imaam sëriñ Basiiru Mbàkke nag mi ngi doon wax nag keroog nag ñu nekkoon nag ci kër gi kenn ku ne daal néeg ba nga nekk boo cay génn lu dul say yére nag bu mu la topp nag na ko bàyyi nag ca néeg ba sëñ Basiiru itam ci boppam nag dafa génn kër ga dem wutaat nag gëneen kër ngir nekk fa kër googu nag mu nekkaatoon nag ginnaw bu mu jébbalee kër gu mag gi nag sëriñ Habibu Mbàkke imaam mooy kër gi nga xam ne nii nag ci la sëriñ Muntaxa Mbàkke di doomam nag dëkk jamono jii sëriñ Habibu Mbàkke nag wéy nag nekk nag ci loxo loxoy Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ba ci atum 1969 jàngal na fa itam nag ñu takkoo takkoo tak takku ci njabootug Seexul Xadiim gi ñu man cee ràññee sëriñ Mbàkke Daba Saar moom sëriñ Abdourahmaan Mbàkke moom maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Abdu Kumba Kumba Suuna moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke sëriñ ma ñaaw gay sëriñ Muntaqa Mbacke moom Cheikh Mamadou Bachir sëriñ Abdul sëriñ Xalaaji Mbacke moom sëriñ Basiiru sëriñ Basiiru Faal sëriñ Maamoor Mbacke say sëriñ Njaga Silla sëriñ Isaaxa Mbacke moom Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu bokkoon nag ñii nag génération jàngee nañ nag ci dëkk boobu nag di Touba Mbul mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Touba Mbul nag ba ci Mouhamadoul Bachir Mbacké génn na àdduna ci atum 1966 ci atum 1966 boobu sax bi Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacké génnee àdduna kii di sëriñ Habibou Mbacké imaam dafal na ko nag marsiya bu yaatoo yaatoo yaatu di ñu wax nag jikkoy Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacké melokaanu Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacké ni Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacké nag fonke woon xam-xam ak nag doomu xaadim rasul nag bi mu doon abban li daari xaraabin manzilil huuni tuuba liman baaha bil qurrabil hiini kayfa al ayaatu ala ayshin yunaqiduhu الهمام بشير الحلم والدين نجل الخديم شجاع الخرن مونسهم مير العفاة ومصلاة المهازين من فقده هدم ركن لا كفاع له من سنة المصطفى في جبر توهين ندب كريم تقي مفلق قسم كأنه الشيق في جد وفي لين شيق مرب مرق كل مفتقد كما ينجيه من لصق الشياطين مكارم الدين والدنيا قد اجتمعت له بأثنى جمال دون تحمين man fil muridina faxrun kaamilun walahum milhun malihun wa xadun gayru maxbuuni baharun qidammun bila mannin liwaaridihi kashful qawaamidi tawdixan bi talqiini fardun yadullu ala sublil kamaali bila fatrin lizairihi fi ayi maahiini ayal bilaada bi zurraahin ya ummu bihim wajhal ilahi min anwaahin basaatiini wa bil qusuuri wa bil amwaahi jaariyatan jariyal bihaari li infaaqin wa taskiini jasaahu zul harshi ridwaanan ومرعمة حنا وأجرا عظيما غير ممنون وقرة العين في أبنائهم كرما وفي البنات وفي الأعباب آمين سراح هذا الاثنين آخر مختار الحشا رابهم وخشش تبيني له من العمر باح داح مرتفعا فيهم الله والتقوى وفي الدين رقاه مولاه بالهادي وقادمه أعلى الفراديس في أسكى الرياحين عليه بالآل والأصحاب والقدماء صلاة كاف كفانا كل ملهون 1969 nag la jóge nag ci dëkk boobu nag di Touba Mbul ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ngir sëti xaadim rasool yi nga xam ne ni dañoo toll nag ci jàng xam-xam te sëriñ Souhaïbou Mbacke nag bëggoon ku jàngal loolu nag moo indi nag sëriñ Habibou Mbacke nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba di ñaareelu yoonam nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba Cheikh Modou Moustapha nag indi woon na ko fi ci li ko dale nag ci atum ba ci atum sëriñ Souhaïbou Augustin bu Mbàkke ci dëkk boobu nag di Touba Mbul indi ko nag ci dëkk bii nag di Touba ci li ko dale nag ci atum ba nag ginnaaw bu mu moo ko jël nag féete woo ko wutal ko këritim nag ci péncum boppam mi jox ko nag daara jëm taxawal nag ngir Serigne Habibu Mbàkke nag di fa jàngale nag xam-xam ba tax na itam nag bari na itam nag ci génération bi nga xam ne nii kat ci atum 1969 nag ci xam-xam nag la ñu toll Serigne Habibu Mbàkke imaam itam moo leen jàngal ci dëkk bu sell bii nag di Touba ñu cee ràññee sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ abdou xaadir mbàkke sëriñ abdou lahad mbàkke moom sëriñ soyebu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daal ñu bokk ak ñoom génération jëmm ji nga xam ne nii nag moom la mujjee jàngal nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba mooy cheikh mamadou lamine baara mbàkke moom sëriñ Touba cheikh abdoul ahad mbàkke ndax bi sëriñ baara mbake moom sëriñ abdou lahad mbàkke nag tollee nak ci jàngum xam-xam dafa tolloog nag sëriñ habibu mbàkke nag di waaj a bàyyi yam njàngale ginnaaw bu ko sëriñ baara nag sàkkoo ci moom sëriñ habibu mbàkke itam nag nangul na ko ko doon ko wax ne nag wàllum njàngale dama ko bëggoon a bàyyee gone yi waaye yow nag yéene ji nga am nag ci ngir ma jàngal la danaa la ko nangul sëriñ baara mbàkke moom sëriñ abdou lahad mbàkke nag la mujjee jàngal laataa nag muy bàyyim njàngale taxawal na itam nag luñ tudde ay daara moom doomu sëriñ mbàkke kajoor bi ci daara yi nga xam ne nii nag sëriñ habibu mbàkke taxawal na ko ñu mën cee ràññee nag jaar gi mu jaar ci misra ak maam balla ci 1938 ba ci 1940 jaar gi mu jaar ci dëkk bii nag di daaru raxmaanu sëriñ madiba silla ba Mouhamadoul Bachir Mbacké ci 1947 ba ci atum 1969 ci 1969 googu sax bi muy bàyyikoo ci dëkk boobu nag di Touba Mbul daara ja nga xam ne nii nag taxawaloon na ko fa ginnaaw bu mu fay bàyyikoo nag di ñëw nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci ndigalul sëriñ Abdou Lahad ak kii di sëriñ Soye bu Mbacké daaray Touba Mbul jooju ak njabootam itam nag la fa bàyyi woon nag ngir ñu wéel nag daara ja ñu mën caa ràññee sëriñ Abdoul Mujib Mbacké sëriñ Cheikhouna Mbacké di ab taawam sëriñ Bas Faati waaye jamono ji nag sëriñ Basiru Mbacké di doomam moo yore daara ja taxawaloon yoroon na daara itim nag ci dëkk bii na itim nag di puut doomam sëriñ Moodu Muxtaar Mbàkke itim nag moo yoroon daara ja wala moo yor daara ja dëkk bi itim nag di daaru Minam Saalum sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru doon na sàkku itim nag ci moom mu jox ko itim nag ñenn ci njabootam ngir daara jam fa taxawal itim nag bu munta am sëriñ Habiibu Mbàkke itim nag doomam nekk fa nag di jàngale sëriñ Baara Roqaya la ko joxoon na ngir mu fay jàngale taxawaloon na daara itim nag ci Tuubaa Madiyaana sëriñ Alaaji Mbàkke doomam itim nag la fa bàyyi woon dëkk bi fa daara sëriñ Abdul Wahab Mbàkke itam nag la fa bàyyi woon di doomam dëkk bi itam nag di kër kàbbu ginnaaw bu mu fa taxawalee daara ku ñuy wax sëriñ Moodu Faati Sekk itam nag la fa bàyyi woon waaye jamono ji nag doomam ji nag ñuy wax sëriñ Baara ya moo fa nekk ak daara ji mu taxawaloon nag ci Mbàkke Kajoor yitteem jépp nag jàng ak jàngale la moom doomu sëriñ Mbàkke Kajoor bi di sëriñ Habibu Mbàkke imaam jox na itam nag ci ñenn itam nag ñoom yar itam nag ñu taxawal ay daara ku mel na sëriñ Amdi Jóob doomu sëriñ Daam Jóob moo ko dal itam nag ci quartier bi itam nag di Madiyaana ngir nekk fa itam nag di jàngale Mbàkke itam nag taxawal na jeneen daara itam nag ju mag a mag ci dëkk bu sell bi nag di Touba nekk itam nag ci ginnaaw kër sëñ Abdou Lahad Mbàkke soin bu daara jooju sax njëkkul woon a nekk foofu ci kër ku ñuy wax kër sëriñ Fàllu Njaay la nekkoon doomam ju ñuy wax sëriñ Abdul Mujib Mbàkke la sëriñ soin bu Mbàkke nag jëndaloon kër ga laataa nag ñu fay dëkk sëriñ Abibu Mbàkke nag abboon na kër ga taxawaloon fa daara ji ginnaaw bi nag la jëlee daara ji foofu yóbbu ko fee ñu tudde nag daaray sëriñ Habibu Mbàkke wala fi ñu tudde nag jàkkay sëriñ Habibu Mbàkke ngir def fa daara ji daara jooju Mbacke ma nga fa woon ak sëriñ Basiiru Mbacke doomam ak sëriñ Moodu Moxtaar Mbacke sëriñ Basiiru Mbacke Abibu nag moo yore nag liggéey ba jamono jii wala mooy sàmm liggéey ba jamono jii sëriñ Basiiru Mbacke nag doomam mbooleem daara yi sëriñ Abibu Mbacke taxawal moom moo nekk nag jëwriñam ja ci ndigalul sëriñ Abibu Mbacke imaam bi fi sëriñ Abibu Mbacke bàyyi ko itam nag sëriñ Seexuna Mbacke mii ko wuutu itam loolu itam nag la wéel nag ci rakkam ji ginnaaw daara yooyu mu taxawal moom sëriñ Abibu Mbacke imaam itam nekkoon nab imaam ba tax na itam ñu koy wooye sëriñ Abibu Mbacke imaam ndax ci loxoy Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ci dëkk boobu nag dimbul nekkoon na fa imaamu julli korite ci dëkk boobu nag dimbul ginnaaw bu mu ñëwee Touba itam nag ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ak Serigne Soye bu Mbàkke nekkoon na imaam itam ci pencum Serigne Soye bu Mbàkke ginnaaw imaam googu nag mu nekkoon Touba nag ci péncum Serigne Soye bu Mbàkke nekkoon na imaam itam nag ci jumaa ji mag ji li ko dalee nag ci atum 1990 ba atum 1993 ci ndigalul nag Serigne Touba Cheikh Salihu Mbàkke ndax kan moo fa wuutu Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbàkke nekk itam nag ñetteelu imaamu jumaay Touba ci li ko dalee nag ajjuma 18 mai 1990 ajjuma 18 mai 1990 la sëriñ bu Mbàkke imaam nag njëkk jiite nag ci jumaay Touba ji ndax sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nag ci dimanche ji nag la génn àdduna ajuma ja ca topp nag moo dëppoo woon nag fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai ci atum 1990 sëriñ bu Mbàkke imaam sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke nag def ko imaamu jumaay Touba moo ci nekk nag ba ci atum 1993 mu jiite nag ci jumaay Touba ji nag lu tolloog nag téeméeri ajjuma ak fukk ak juróom-ñett muy 118 vendredi la sëriñ Abibu Mbàkke imaam nag jiite nag ci jumaay Tuubaa ji fukki ajjuma ak ñeent nag la ci wuutee buñ boolee nag mbooleem ajjuma yi nga xam ne nii bi sëriñ Abibu Mbàkke imaam nag nekkee imaam ba ni mu génnee nag ci imaam gi mi ngi toll nag ci téeméeri ajjuma ak fanweer ak ñaar fukki ajjuma yi nag ak ñeent nag la ci wuutee téeméeri ajjuma yi ak fukk ak juróom-ñett nag jiite na ko fukki ajjuma ak ñeent yooyu nag mu ci wuutee fukk yi ak ñett sëriñ Cheikh Abdul Mujib Busa nag moo ko jiitee benn ajjuma ba nag sëriñ na ko itim nag ci jumaa ju mag ji wala itim nag ci dëkk bu mag bi itim nag di Touba makkatal mukarrama Habibu ba tey imaam toogoon toogaayu sëriñ Mbàkke Kajoor ci li ko dale ci atu ba ci atu atum 2005 ba tey ci liggéeyu sëriñ Habibu Mbàkke imam bi mu toogee toogaayu sëriñ Mbàkke Kajoor ci atum néeg bi nga xam ne ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñëwoon na fa ci atum 1903 di ñeenti fani ga néeg ba sëriñ Mbàkke Kajoor daraloon Xaadim Rasuul sëriñ Habibu Mbàkke imam nag moo ko defaraat lii di jumaay Mbàkke Kajoor sëriñ Habibu Mbàkke imam moo ko tabax moo teg xeer wa moo ko inigré ci teewaayu doomam sëriñ Muxtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul lii di màggalug sëriñ Mbàkke Kajoor itam itim nag di Mbàkke Kajoor moo ko yeesalaat nag ba ñëpp itim nag ñeme faa dëkk mu sàkk woon itim nag ci doomi sëriñ Mbàkke Kajoor yi kenn ku ne itim nag am fa kër te fonk itim nag dëkk boobu màggal googu itim nag di màggaluk sëriñ Mbàkke Kajoor di ñeenti fani korite gi nga xam ne ni Xaadim Rasuul ñëwoon na fa nag seet si nag waajuram woowu nag di sëriñ Mbàkke Kajoor Seex Murtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul la ci sëriñ Abibu Mbàkke nag daa àndal nag at mu jot ba tax na itim nag képp ko xamoon màggaluk Mbàkke Kajoor xamoon Seex Murtada Mbàkke xam na itim nag daawu ko wuutee kajoor am ginnaaw yàlla nag sëriñ Habibu Mbàkke imaam la ndax itam nag ceeg ayam nag la amee mbooleem sëti maam maaram itam nag magoon na ci ndax kaamil bi ñu tudde mag moom itam sëriñ Habibu Mbàkke imaam itam yoroon na ko nekkoon na itam nag bind bindkat loola itam nag tax na bi sëriñ Mbàkke sa nag génnee àdduna ci atum 1946 sëriñ Habibu Mbàkke imaam itam nag defal na ko marsiya bu yaatoo yaatu mag ñuy wax nag jikkooy sëriñ Mbàkke Buso ak melokaanu sëriñ Mbàkke Buso ak nag taxawaay bu sëriñ Mbàkke Buso taxawoon nag ci yoonu xaadim rasool wi nag di yoonu murit sëriñ Mbàkke bu sa amaloon yoonu murit gi ginnaaw bu mu ñu dëddoo nag mu di ñu xamal ne nag yoonu murit nag manqué na itam nag lu rëy a rëy ndax ku toll ne sëriñ Mbàkke bu sa dem na ñu teewlu nag li ci sëriñ Habibu Mbàkke imaam defoon ginnaaw nag bu ñu sëriñ Mbàkke bu sa dëddoo qad afa diinu walhuda walwalaau bi manaamil imaami daaka albalaau sunnatu almustafa alayhi salaatun wa salaamun xallat biha buraxaau wayxa nafsi li faqdi man bakati alardu lahu wasamaau wa xuqa albukaau sayidun fawwaqa sihaama mujiidan listiyaadi lula fa faada alwiaau sayxunaa mbàkke buso baxru culuumin saaxirun laa turaddu anhu dilaaw qad axaafa diina min maxli jahlin fi awaanin bihi adarra wamaau daqaqa alfikra fi gawaamida shatta wa ataanaa bi fassiha aliftaau kam abaanat culuumuhu mucdilatin qasurat fi istinbaatiha alulamaau allama annaasa diinahum wa hadaahum fa ka anna alrijala fihi nishaau xajja albayt alali wa zaara almuqafa waxtada min nawaalihi alfuqaraau yaa lahu min muammirin li garaabi alcilmi lamma stawa alayhi alcafaau xuddatu lcheykhi kaana fi kulli manxa fa ila ra'yihi ladayhi almadaau jaddada addiina fa huwa ruknun matinun xaazimun laa yumallu minhu sawaau qad duci cumruhu alaayu nisfa hassas laylata wal isnayn istujiba diaaw wafqa fihi lilmufliqina jamian la limithli fi lmughridina arrisaaw gayra anna al ashwaaqa qad xarrakatni wa an almuttarrina yufa alxataaw anzala allahu ruuxahu jannat alfirdawsi fi man abnaahum alistifaaw wa yali bacda ahlihi xayru mawla wa nasirin binasrihi aliktifaaw wa bihi awfara alxusuusi xabaana yowma tacnu li sha'nihi alcudamaau bi imaami alhudaati xayri خير البرايا من به في الديانة الاقتداء وعليه من الإله صلاة وسلام ورحمة وزكاء تشمل الآل والصحاب ومن في هديهم والتقى له الاعتناء مكتسى مبدأ برود صناء وصلاة على النبي وانتهاء marsiya boobu ngeen doon déglu nag te sëriñ Habibu Mbàkke imaam nag defaloon ko nag kii di sëriñ Mbàkke Buso loola itam nag tax na doomam ji ñuy wax soxna Faati Mbàkke sëriñ Asan Buso bu sëriñ Mbàkke Buso nag moo ko dëkkoo woon am nañu itam nag ay bant ñu mën cee ràññee soxna Mareema Bousso ak sëriñ Seexuna Bousso bi sëriñ Assane Bousso génnee àdduna lañ fop soxna Faati Mbàkke nag jébbal ko sëriñ Fàllu Njaay bu sëriñ Mor Daaru Njaay bokkoon itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim soxna Faati Mbàkke itam na am na fa ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Saaliwu Njaay ak seeni rakk doomam ji ñuy wax soxna Bintu Mbàkke sëriñ Soye bu Mbàkke im nu sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul moo ko dëkkoowoon mook sëriñ bu Mbàkke itam am nañu njaboot ñu mën cee ràññee soxna Assu Gaawaan Mbàkke doomam ji ñuy wax soxna Loota dëkkoo doomam ji ñuy wax soxna Mbeen Mbàkke sëriñ Baara Roqaya moom sëriñ Abdul Mujib Mbàkke itam moo ko dëkkoo doomam ji ñuy wax soxna Assu Njaxan Mbàkke sëriñ Aboo Mbàkke moom sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru moo ko dëkkoo doomam ji ñuy wax soxna Maam Ja Mbàkke sëriñ Alaaji Mbàkke moom sëriñ Moustapha Mbàkke di xalifa Mbàkke Kajoor moo ko dëkkoo doomam ji ñuy wax soxna Mbàkke sëriñ Alaaji sëriñ Sëy nag mooy ki ko dëkkoo doomam ji ñuy wax soxna Maam Faati Mbàkke xujja sëriñ Abdu Samat Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Seex Soy bu Mbàkke nag moo ko dëkkoo woon ba tax na itam am nañ bant buñ tudde sëriñ Muxtada Mbàkke ginnaaw sëriñ Abdu Samat Mbàkke Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou soxna maam Faati Mbàkke xujja mi ngi ci loxoy nag sëriñ Moodu Seck doomam ji ñuy wax soxna Maymunatu Mbàkke sëriñ Daam Silla mooy ki ko dëkkoo doomam ji ñuy wax maam Awa Mbàkke sëriñ Ibra Sëy nag mooy ki ko dëkkoo doomam ji ñuy wax soxna Nday Mbàkke sëriñ Baara Sëy nag mooy ki ko dëkkoo ba tax na itim nag moom sëriñ Abibu Mbàkke lu takkoo takku itim nag ci njabootu Xaadim Rasuul gi itim nag tudde na leen doom ñu mën cee ràññee Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul ndax tudde woon na Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke doom Cheikh Mamadou ko tudde woon mi ngi ci Daaru denc sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul sëriñ Habibu Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Tubaa Cheikh Abdou Lahad Mbàkke itam sëriñ Habibu Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Tubaa Cheikh Sohaybu Mbàkke itam nag sëriñ Habibu Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke moom sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul itam sëriñ Habibu Mbàkke tudde na ko doom Elaaji sëriñ Jabu Daaru Salaam sëriñ Habibu Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Alaaji Mbàkke bu sëriñ Habibu Mbàkke mi ngi fii sëriñ Moodu Mbàkke moom sëriñ Habibu Mbàkke sëriñ Amar Faal Mbàkke di magam itam nag la ko tuddee sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Habibu Mbàkke sëriñ Muhammadu Lamin Gay jannatay firdawsi nag la ko tuddee njabootu xaadim rasul gu jigéen gi itam nag ñu takkoo takko itam nag tudde na leen doom soxna mariam jaxate miy waajuru sëriñ soen bu mbàkke ak sëriñ touba cheikh abdoulahan mbàkke sëriñ habibu mbàkke tudde woon na ko doom ndax soxna maam mariama mbàkke mi ngi fi woon bari na itam nag ñu ko tudde doom ci yoonu murit ñu mën cee ràññee sëriñ murtada mbàkke ibnu sëriñ touba xaadim rasul tudde na ko doom ndax sëriñ ñëpp itam nag tudde nañ ko doom ndax abibu mbàkke yi takku na lool ci mbàkke kajoor loolu itam nag tax na nag ñu takkoo takkoo takku nag kii di sëriñ abibu mbàkke nag amoon naag ñoom relation ndax lu takkoo takku itam nag ci mag ñi sëriñ abibu mbàkke moo leen jàngal lool itam nag taxoon na sëtam bii nag di sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma bi fi président de la république léopold sédar senghor bëggee taxawal nag li ñu tudde code de la famille sëriñ cheikh na ko xeex di wax ne loolu nguur gi nar nag moom àndu ci mbooleem nag kilifa diine yi nag yi fi nekkoon jamono jooju àndoon nañu sëriñ cheikh mbàkke nag ci xeex ba di ko jàpp jàppale ci lii nga xam ne nii nag nguurug Sénégal nag mi ngi ko fas yéene taxawal muy code de la famille sëriñ Habibu Mbàkke imaam itam nag bokkoon na nag ci ñi doon jàppale sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma na itam nag bindoon na yooyu nag am martu nag la ko jàppee mu martu bi nag bépp tabax boo xam ne ni gis na ko te nekkul nag tabaxub dëgg martu bi nag dana ko toj te martu bi sax nag toj na ko ba noppi ndax kàddu sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma yi doolee martu nag la yore ñu teewlu Mbacke bindoon na di jàppale sëtam boobu nag di sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi al axyaar al kaamilin wa faqad waafaqtu على كلمة حق تصدع رداء الشرك وفور صدق تسرق محمد الإفك للسيد الأغر والنبي الأغر أحمد البكي في الرد على المعاصرين في صنعين خارقة لإمام المسلمين بين فيها أن الأحكام الشرعية توقيفية بالروايات الصحيحة والآيات البينة ووجدت بها غاية السرور ورجت أن يصرف الله أنا بعد مكائد الغروب جزا الله تبارك وتعالى على هذا الكاتب الذي يخدم للدين ولم يرد بالدين انتهى بمرقم الجاهل الحق الله ba tey ci mbindum sëriñ Habibu Mbàkke imam Cheikh dul Faadal Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul defoon na nag ay way ci ginnaaw nag ba mu ziyaare jee barabub Xaadim Rasuul bi ginnaaw nag bu sëriñ Habibu Mbàkke nag gisee way yooyu nag mu dul Faadal Mbàkke defoon moom tim nag defaatoon na ay way ngir barkeelu nag ci wayi Cheikh dul Faadal Mbàkke yooyu soo demee nag ci wayi sëriñ Habibu Mbàkke nag bindoon ma ñaan nag ci biir waya suñ borom nag nangu ab liggéeyam te defal ko nag barke te demee nag bay génn àdduna na tëddaale nag ci wetu Xaadimu Rasuul loolu itam nag bokk na nag ci lu mu doon ñaan nag ci way yooyu waaye nag ñaan goog mu doon ñaan nag nangu na ndax bi mu génnee àdduna mook sëriñ soye bu mbàkke nag ñoo bokk nag fenn fu ñu tëdd ñu teelu nag ñaari way yu sëriñ habibu mbàkke defoon ginnaaw nag bu mu gisee nag way yu cheikh mamadul faadal mbàkke defoon te doon ziyaare nag barabub xaadim rasuul jaahikum artajil gufraana mubtaxiyan bihi tuqaatan li rabbi xaqa taqwaahu naajaaka munhamikun fi dambihi wajlun muqaddiman haadihi quddaama najwaahu dacwaaya dacwaaya yaa rabbi bi xurmatihi wa an akuna dajian jamba mawaahu ñu teelu nag way yi Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke defoon ba tax nag Sëriñ Habibu Mbàkke nag def way yi yaa sayidan fi lmaali qalla charwaahu wa yaa muhibban fuaali dahra maswaahu inni ataytu li wajhi llahi zairakum abqi bihi nayla ku dégg way yooyu nag daa xam ne sëriñ Habibu Mbàkke itam nag bindkat la woon jàngalekat itam nag la woon mu wéy nag des nag ci dëkk bi ci li ko dale nag ci 1969 ba 2005 ci 2005 nag la génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci këram nag gi wuuf nag péncum sëriñ Soin bu Mbàkke bisub àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Saxbaan ci atum 1426 ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Saxbaan ci atum 1426 ci gàddaay gi dëppoog muy mercredi 5 2005 mercredi 5 octobre 2005 ci dëkk bu sell bi nag di Touba ci kërug boppam sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ca wetu xaritam ba di doomam ja sëriñ soin bu Mbàkke ci péncum sëriñ soin bu Mbàkke sëtam bii ñuy wax nag bay Saaliw Njaay defal na ko nag am marsiya bu yaatoo yaatoo yaatu nag ginnaaw nag bu fi sëriñ Habibu Mbàkke bàyyi ko nag ca atum 2005 di ñu wax nag maamam jooju nag jikko yim meloo woon ak melokaanu maamam ak nag mu nekke woon nag ñuy defal nag di sëriñ Saaliwu Njaay ngir di ñu wax nag melokaanu maamam ñu teewlu ko qad jafa annawmu walkara wa saraau bi manaami alimaami xalla alanaau batali alislaami alladi qad tanaqa min tahaai aluyubi hudda alhudaau bakati alardu walsamaau walbihaaru liraxiili alruuxi tuxiqa albukaawu sayquna xabibu lmbakki zittu xaawal waraci zuhdi nixma hada albawaawu lam yazuq fi xayaatihi tacma nawmin layluhu yowmuhu wa faaqa alxidaau yaala baxrin min shattiha qad أناخت علماء الزمان فالحكماء جدد الدين فاستبان مباديه جميعا واسترشد الأغبياء ورث الحبر مالكا في الطريق فانجلى عن بدر أزيل الغطاء مؤمن حقا محسن فالتخلي كالتجلي والبهمة البهماء صادق في مراده ومحب شيقه من قلبي إليه الولاء سيد سقله صلاة وصوم لا ثمينات المال والندراء عالم عابد ومن محور العي في التعاليم والبناء واقتراء كان يمن تموج أمواجها شرقا وغربا قطراتها الأولياء شيخنا إسلام يسير ويمشي لا سوى ذا وصح هذا الثناء صف لجود غدا نمير العطايا من له في روم الغذاء انبراء بان قبل الحياة شريا وخطبا طالما أضمعت بقوم دماء أغشيت وجهها بوفر جمال فوجئت من خشب علينا الهناء ليتكن فينا مخلد لأتانا ملك كسرى مع أنه للهداء jaahukum laysa fi luyuuni bi xaafin iz lahu fi lqiyaasi kufun zukaaw law tafaddat nafsun bi nafsin la nafsi wa nufuusu allati alayha alfidaaw xuqa linnaabigiina fiikum risaaun maa ida kaana lidduyuuni alwafaaw gayra anni shadiidu shawqin hafaabi li risaa'in maa anna nutqiyahu raaw aymunun umruhu bi waqta shuraahu ashra kay sacbaana suma alarbicaaw askana arruuxa rabbu jannata firdaw sil aliyi alladi lahu alkibriyaaw daama jamcu alciyaali xayra المولى للفقيد الكريم والصلحاء وسلاما إلهنا بمحمد وبآل له كذا الكرماء ما أنال المرام حب كرام وانتما في كل الأمور انتهاء ginnaaw marché boobu ko sutam defar nag di sëriñ Saaliw Njaay ñu takkoo takku itam nag ci mag ñi itam nag way nañ moom doomu sëriñ Mbàkke Kajoor bii ñu mën cee ràññee sëriñ Abdourahmane Mbàkke moom sëriñ Abdul Quddus Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru def ay way ci sëriñ Habibu Mbàkke na am marché waajuróomam wii sëriñ cheikh diouf bu njàpp ndal bokkatim nag ci dongay sëriñ touba cheikh saaliwu mbàkke yi defaloon na sëriñ habibu mbàkke am marsiya sëriñ ibrahima mbàkke mordoj ginnaaw bu ñu sëriñ habibu mbàkke dëddoo defal na ko am marsiya ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ne nii nag way nañ sëtum maam balla bi ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ habibu mbàkke imaam sëriñ seexuna mbàkke moom sëriñ habibu mbàkke imaam moo ko wuutu nag ci atum 2005 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogooy waajuram boobu nag di sëriñ habibu Mbacke ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ Habibu Mbacke moo xam góor ak jigéen sëriñ bu Mbacke imaam nag am na bis nag bu ñu koy fàttaliku ci li ñu tudde nag ak màggal ndax donga yi nga xam ne nii kat jaar nañ ci daaraam nag tam def ci ñoom xam-xam jàpp nañ nag bis bii nag di fukki fan ak ñett nag ci weeru tëbaski di nag bu ñu tëbaskee nag ba ca gannaaw suba ga ñu dajee nag ci Touba Daarul Xuddoos ngir fàttaliku nag seen jàmbaar jooju leen xamal nag lii di xam waaye nag am na beneen bis nag buñ koy fàttaliku waalee muy bisu waajuróom bii nag di bisub sëriñ Mbacke Kajoor korité di bis bi nga xam ne nii nag ci la sëriñ Touba Xaadim Rasool ñëwoon nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor doon seet si nag waajuram woowu nag di sëriñ Mbàkke Kajoor sëriñ Habibu Mbàkke imaam nag moo taxawaloon bis boobu ci atum 1981 di bi mu toogee nag toogaayu sëriñ Mbàkke Kajoor ginnaaw bu mu wutalee sëriñ Mbàkke Kajoor bis nag bis boobu itam nag ak njabootam itam nag daañ ko ci fàttaliku waale ndax lépp bis ba mooma waaye bis bi gën a wér daal ci sëriñ Habibu Mbàkke imaam mooy fukki fan ak ñett nag ci weer wi nag di weeru tabaski di buñ tabaskee nag ba ca gannaaw suba ci dëkk bii nag di daarul xuddoos wala ci quartier bi itam nag di daaru xuddoos ñu jóge nag ci ay loxoom nag ñoo koy taxawal di donga yi ñuy ñaan ci ka Cheikh Modou Moustapha Mbacke amoon ci moom yaakaar ba indi woon ko dëkk bu sell bii nag di Touba ngir mu jàngal nag tuut tànk yi fi nekkoon jamono jooju ka waajuram wa sëriñ Mbacke Kajoor tudde woon sëriñ Habibullahi yàlla nañu ko yàlla fayal nag te yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem ci darajey post boobu mu yoroon nag di imam lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey